xam sa démb xam sa tey xam xam sa tey une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund suñu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal suñu ëllëg ñun ñooy taarix may leen ma nopp ma waxtaanee mbër waxtaanee Njaajaan Njaay mi nga xam ne moo sos Jolof may leen ma nopp ma waxtaanee doomi Boubacar Ben Omar ji doomi Fatoumata Sàll ji may leen ma nopp ma wax leen ki sos jolof fukki xarnu ak ñett ci ginnaaw at mi yontu yàlla Isaa gane àdduna kooku nag lan ne mooy maami bépp wolof ba lu mbir yàgg-yàgg ñu ne ca jamonoy njaajaan la woon ginnaaw nag pays mi nga xam ne mooy pays yu Gana di réew mu mag ma ginnaaw bi mu tasee nag Boubacar benn Omar bàyyi njaajaan nga xam ne moom ma nga sosoo ca réewu arab ya ñuy wax almoravide moom moo toppoon ci li mag ñi nettali dex gi di wàcc ànd ak nag mbooloo ak kàngoor ak i xeexkat wàcc ñëw fuuta ba mu ñëwee nag ma nga dal Gede Gede di benn ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a yàgg ca Fuuta Tooro ginnaaw bi nu nangoo ne boroom xam-xam la nangu ne lislaam mokkal na ko te lislaam doon diina ju bees ca la nag Boubacar benn Omar amoon tur wu mag wa ñu daal di koy jël nag dugal ko ci biir Fuuta nangu ko may seen doom ji tudd Fatoumata sàll Fatoumata Sall kuy baayam xanaa Lam Tooro Abraham Sall lay baayam bi Fatoumata sàll sore ci ëmb bi Boubacar Ben Omar dem xeexi ji ak naar yi ca Singeti bi mu ñëwee nag yaakaar ne bakkanam dana des ci gaañu gaañu yi mu am daal di koy woo daal ne ko soxna si mu ne ko ah, mu ne ko dangaa ëmb sori nga lool te yaakaar naa ne góor ngay am bu juddee doon góor tuddee ko yonent bi nga xam ne mooy Muhammadu sunu yonent boo demee nag ba nga xam ne munoo toogati te amoo jëkkër mu ne ko ah, mu ne ko na nga jël ku gore na nga jël ku am diine Boubacar Ben Omar ab diir lañ ci teg mu génn àdduna bi mu génn àdduna ginnaaw wax jooju Fatoumata sàll am doom du góor ñu tuddee ko Mouhamadou mu màgg nag ak yaayam ba nu demee ba Fatoumata sàll amaat beneen borom kër ah la nga xamoon nag moom la Boubacar waxoon la def tànn ku baax ku am diine kooko ma nga tuddoon Barik ca biir sëy boobu ca la Mouhamadou màggee génn dem nag yoonam ne day tukki day gàddaay waaye dafa dem dugg ca biir dex ga ñu yaakaar ne dee na mu yendu ci biir ndox mi kéemaanu yàlla guddi lay génn yenn saa yi ñu gis ko cib dëkk mu jaaxal nit ñi nit ñi di wax gis nañ ko fuum gis nañ ko jawar gis nañ ko ci yeneeni dëkk gis nañ ko fanaay gis nañ ko walwal de moom muy dox rek bu yendoo ci ndox mi fanaane génn dox te tefes gi wala kenn xamut nu muy def di wàcc ca la wàcc ba àgg wàllo ba mu àggee wàllo nag mu daa àgg ci dëkk bu tudd Mageen Booy diggante Ndar ak Ross Béthio foofa nag la génnee nit ñi teg ko bët jamono jooja jigéen ñi bu daan napp dañuy am jafe-jafe ngir seddoo jën yi waaye moom bu ñëwee rek dana fexe ba ku ne am sa wàll te coow di jib te du wax ñàkk wax boobu nag jaaxal jigéen ñi ñu dem ca dëkk ba daal di koy nettali jigéen ñaa nga naan am na luy génn ci biir dex gi am na nag jëmmi nit waaye karaw ga gudd na ba mu jaaxal nu tey kenn du ko dégg mu wax nit ñëpp jaaxle mag ña daal di génn waxtaan jamono booba nag Atumaan Booy lanu wax ne moo jiite woon gox boobu ah Atumaan Booy amoon na ay mag ñu ko doon jàppale ñu mel na Najib Mbeng ak Bawaan Saar benn bis mu Muhammadu génn ñu daal di koy jàpp yóbbu ko ca dëkk ba bëgg ko waxloo mu ne miig waxut ñu xam ne kii nit la donte karaw gi gudd na yàgg bi mu yàgg ci ndox mi xëy na moo tax xamatul nu nit di waxee ñu daan ne jigéen ñi wut leen i pexe mu am kenn ci ñoom ku ne nan ko xiifal ku xiif da nga wax biñ ko xiifalee ñetti fan mu daal di taal ci kanamam jël nag cin li teg jël ñaari dos dos yi mooy xeer yooyu nga xam ne moom la ñuy teg ci cin li bu ko ci tegee rek cin li daanu mu koy def di ko def ba mujj booba pël lay làkk mu ne ko kàlloo ji tati boo ko déggee ci pël mooy def ci ñetti wos ñetti wos yooyu nag la ndaw si fexe ba waxloo ko mag ñi nga xam ne benn baat rek lañ doon xaar mu wax ko daal ne na am ñu takk dem siin ndax booba may sa waali joon boroom xam-xam bu rafet bi may sa waali joon lu ko nit yóbbul mu tekkil la ko noonu lan demee nag àgg ci may sa waali joon ne ko waaw may sa ñun de dañ ñoo yónni daa am lu feeñ ci sunub dëkk am jëmmi nit karaw gu bëri lool waaye nanguwul woon a wax jigéen ñi nag def nañu pexe ba wax loo ko may sa waali ba nit ña waxee ba noppi mu daal di reex xaqataay daal di na laahi njaajaan boo ko tekkee ci séeréer mooy ndaw mbir muy yéeme kon nag njaajaan a ngoog turoo fa la juddoo ngeen dégg ci ne may sa jon teg na ci ne leen kooka nag yax bu rëy la bokk kooka nag yàlla may na ko xam-xam kooka nag dana yor réew te ay ñoñam ñoom meññ dana yorum réew ne leen bu ngeen demee ngeen wormaal ko bu ngeen demee ngeen sagal ko tatagal ko. mbooloo ma daal di jógee siin nag ñëw bi nu ñëwee nag nettali li may sa joon wax. njaajaan njaay daal di nettali. nettali fi mu jaar wax ni mu yàggee ci ndox mi mu yéem leen lool ñu jokk ba càgg ñu toog toog toog toog ba càgg ñu ne ah bilaay réew mi soxla na boroom xam-xam soxla na nit ko maandu. nit ku xam yoon kon nan jël kii mu jiite ñu noonu la waaloo. jëlee jamono yooyu nga xam ne ah képp ku fa ne sa ndey mënut a tax nga falu ndax mbooloo mu bëriwul woon noonu lañ jëlee njaajaan daal di koy bàyyi mu jiite leen may sa waali joon nag waxoon na ne kii dana toog dana falu te ay ñoñom danan falu njaajaan njaay toog waalo toog fa yor suuf sa di ko joxe te du tooñ di yor àtte ya te bu àttee du tooñ booleeg maandu gu mat sëkk noona la njaajaan mag ñi nettalee ne mooy barak bi njëkk bi defar réew ma mooy seb ak bawar ak kàngam yi mbooloo mi nga xam ne ñoo war a fal moom la ñu jëloon fal ko mu boole nag dooley buur ak maandum buur fexe ba dajale ñépp dëkk yépp ñu daal di doon réew mu réy moomu di waalo benn bis Boubacar Barik nga xam ne doomu baayam la ñëw fekk ko waalo njaajaan téye ko fa tuuti tàggat ko ba mu mat mu bàyyee ko waalo dem booba nag la jëm yoonu jolof jaajaan bi mu agsee jolof fa la fekk ñi sant mbeng ak ñang néegub mbeng ak néegub ñang la fa fekk mu dem nag dëkk njaayeen saguur foofa nag la sanc céng takk fa soxna su tudd ufa kooka moo jur góor njaajaan mi nga xam ne moo jur buur yi toog jolof takk na fa it ku tudd Mareema Ndooy Géy nga xam ne mooy geñoo ak meen meenu bége ji bi nga xam ne moom la Saara Njaajaan génne ak Geet Njaajaan Geet Njaajaan moomu nag bu ngeen koy topp moom moom meññ jóobi Kayoor jóobi Jolof jóobi Waalo jóobi Siin ak ju Saalum kooka nag mooy bàyyi Gédoo get mi nga xam ne Geet gee ca Kajoor moo ko sosoon ba pare jiitu ko di bar Geet Njaajaan Njaay biñ ko defee buur ba la jël jolof def ko réew moo xam ne nag buur a koy jiite buur ay dogal moom moom lépp ñi nga xam ne ñoo topp ci moom ñoo yaatal jolof ñu ko wuutu yaatal jolof ba nga xam ne jolof dem na ba yaatu woon na yaatu goo xam ne laal na daanaka Sénégal gépp ak Gàmbi lépp jolof la tuddoon galak gi ñëw képp ku yor dëkk da nga koy fay galak noonu la Njaajaan Njaay toogee lamaan yi waalo kajoor bawol siin ak saalum kenn ku ne mu yirif la loo liggéey danga te jël galak ñëw fay ko loola mooy impôt yi ñu doon wax woo koy seet ba tey génn boobu mu génn ci ndox mi ak meññ googu mu meññ ñii nga xam ne ñooy Alburi Njaay ñii nga xam ne ñooy Buuna ñii nga xam ne ñooy Siidi Alburi meññ googu mu leen meññ tax na ba kenn ci ñoom ak ndaween ga toogoon kenn ci ñoom du toog jolof ñu teg la buur te demoo nga sangu je ca dex ga mbaa nga sangu sangu boobu ñu tuddee xulli xulli di fàttali njaajaan njaay ak ndox ma kon njaajaan ngoog njaajaan njaay njaajaan moomu da ngeen ñu koy way di ko way di ko wayee ne ko njaajaan ca jëf ju ja njaajaan moo boole arab yi ak fuuta ak wolof yi réew mi ñëpp benn bopp lañ kii mooy njaajaan njaay kii mooy njaajaan njaay kii mooy njaajaan njaay lenn ci ay jaar-jaaram xam sa démb sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut